ñi ngi dellu si ziyaara mbokk yu tedd yépp di ndokkeel mbokki jotaay bi nga xam ni moom la yàlla dogal nu am ko tey fii ci Cambérène waaye tabaarakallaahu nuy dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke ko may nu nu tal ko dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin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 ndax dama leen fas yéene nettali waaw su ma leen nettalee ba pare wax leen su ma leen waxee ba pare relever la défi ñett yii laa indi Cambérène ci nettali bi lay doore waaw yonent bi sallallahu alayhi wa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif dafa nekk fii ci àdduna yore kurusam di zikr benn nombre usité boo xam ni mi ngi tolloog ci lim cinq mille cinq cent cinquante cinq lenn li di ay araf yoo xam ni ca jawharatul kamal lañu ko tëgge te boobu joxaguñ ko jawharatul kamal ci shahada waaye ca lettre ba ñu dencoon ñaar fukki at ak ñett vingt-trois ba ñu dencoon ca Médine vingt-trois ca la yonent bi rëddoon bind yooyu yenn ci araf yi ñu ngi ko jële ca jawharatul kamal yenn yi ñu ngi ko jële ca salaatul fatiha te boobu jotagu ci officiellement ci wàllu zahir mu yor kurusam moom Cheikh Tijani Cherif di zikr nombre usité boobu nga xam ni moom lañu bindoon ca kayit ba cinq mille cinq cent cinquante cinq waaw ndax Cheikh moo ma sant ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko labbayka yaa sayyidi mu ni ma sooy wax del préciser bul junjati moo tax ma tudd nombre usité bi moom mu ngi ci shahada moom Cheikh Tijani ca jamono jooju may nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga ca xayba toog ca juróom benneelu asamaan ca siège am trois cent mille hijab di ay hijabu boppam wër ko yonent bi jël baat ba nga xam ni tey moom la cheikh ni kuy tàmbali julli di jàng fatihatul kitab na nga xam ni ci fatihatul kitab la bokk muy baatu bismillaahi rahmaani rahim moom la yonent bi jël comme zikr ca juróom-benneelu asamaan ca siège am trois cent mille hijaabam wër ko yonent bi naan bismillaahi rahmaani rahim hijaab yi di seey benn par benn di dugg ci jëmmam te ma nga ca turóonam ba toog moom muhammad ma alxuraan wax ni yaasiin wal xuraanil hakiim innaka la min al mursalina ala siratin mustaqim mu naan bismillahi rahmaani rahim xijaab yi di seey benn par benn di dugg ci jëmmam moom Muhammad ca jamono jooju communion bi am ci digganteem ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mooy ca moment ba Cheikh Tijani Chérif mu ngay jàng moom it secret boobu ñu jox ko ca nombre usité ba cinq mille cinq cent cinquante cinq yonent bi nekk ca bismillaahi rahmaani rahim xijaab yi di seey benn par benn di dugg ci jëmmam muy jàng baat ba moom basmala di jàng baat ba xijaab yi di seey ba mu des juróom ñaar sept xijaab yu taxawi jëmmi Muhammad muhammad ci xaqiqaam mi ngi ci turanam set hijaabam yoo xam ni benn bu ca nekk jëmmam lay reflété nekk ànd ak moom ca juróom benneelu asamaan ca siège yonent bi jàng na basmala ya hijaab ya seey na ci moom mu jëkki saa ci xaalam xam nga boo koy dégg mooy boobu yonent bi aspiré na trois cent mille hijab ba mu des sept mi ngi leen aspiré ci baat ba ñoo tuddee bismillaahi rahmaani rahim bi mu leen aspiré ba mu des sept ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di bëbb leer ga nga xam ni moom la aspiré woon mu dugg ci rooxam maanaam mu génnewaat leer ga bi leeru basmala boobu génnee créé ñetti alam ci kanamu yonent bi yonent bee nga xayb de benn alam bi jiitu bi mu créé mooy alam bi nga xam ni moom la leer ga tudde alamu jalaal mu nekk ca kanamam deuxième alam ba topp ca alamu jalaal muy alam ba nga xam ni moom la leer ga tudde alam ba nga xam ni mooy alamu jamaal troisième alam ba mooy alamu kun fayakun leeru yàlla seede ka ca ñetti alam ya alam bi jiitu ba te di alamu jalaal yàlla génn ca benn turam segg muy tur yàlla ba ñoo tudd wax ni yaa jalaal alam ba topp ca alam boobu te di alamu jamaal yàlla segg génn ca benn turam bu mu nëbbu ñu tuddee ko yaa jamil alam bi ko ñetteel te di alamu kun fayakun yàlla segg ka génn fa turu ahmad muy muhammad mi toog te créé alam Cheikh Tijani Chérif a nga ca kaw suuf de ca la yonent bi jóg nag demande boromam permission waaw xam nga lu tax mu demande boromam permission moom muhammad dafa tourné ñu teg ci kanamam tablu ayatul kursi xam nga basmala la doon jàng bii mu ni bismillahi rahmaani rahim allahu laa ilaha illa huwa alqayyul qayyum laa taaxuzuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi man za llazi yashfahu indahu illa bi iznihi yaxlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma shaa wasia kursiyuhu samawati wal ard dellu ni wala yauduhu xifzuhuma joxañ benn alam ni wala yauduhu joxañ deuxième alam bi ni wala yauduhu xifzuhuma joxañ troisième alam bi ni wa huwa al aliyul azim borom bi ni ko may naa la permission bi ko borom bi ne may naa la permission ca la yonent bi génn nag ci alamu shahaada ak jàllaabeem bu weex tàll bay melax fi mu jóge laa lay nettali nii de daje na ak cheikh jox na cheikh wér du fu mu jóge processus baa ngi nii trois cent mille hijab la aspiré ma nga woon juróom-benneelu asamaan ca siège am trois cent mille hijab la aspiré ci baatu bismillaahi rahmaani rahim restant ye di sept mu bëbb leer ga nga xam ni moom la aspiré woon créé ñetti alam bii di alamu jalaal bii di alamu jamaal bii di alamu kun fayakun alamu jalaal yàlla génne turam ba ñoo tuddee yaa jalaal alam bii jamaal yàlla génn ca yaa jamil alam bii kun fayakun mu génn ca yaa ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag génn ci shahaada moomu muy dox nag Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif dégg na riiru ayatul kursi bi jàngu yonent bi ayatul kursi yu résonné na ci dënnu Cheikh Tijaani Chérif ca la Cheikh génn kurus ga di dox yonent bi di dox ci désert bi ñu war a daje ñoom ñaar yonent bee ngay melax ba boo ko xoolee sa peru bët toj bëtu Cheikh Tijaani Chérif rekk ka àttanoon ca jamono jooju Cheikh di xool yonent bi leer gi di arrosé rooxam mu mel ni acier buy xëcc cheikh ci kanamam cheikh bi waaxu jëm ci moom bëgg yonent bi ralentir pour mu xool lam ko yonent bi di gën a waaxu di ñëw ñoom ñaar mu mel na xaaba xaw say ni aw àddina ñoom ñaar mu mel na nuurun ala nuur yahdillahu li nuurihi man yasha seen dox ba tax ak seen waaxu ba tax cheikh ni yonent bi kat dana ma dab te amaguma lu ma ko terale sa la teggi kaala ga ca boppam lal ni ko marhaban tafaddal yaa sayyidi moo jur malaanu wasifa loolu indi malaanu wasifa waaw yonent bi joxañ ka ca joxañam ba ni ko anta wala di xàqan alamul xaqiqatu nuur ñëw na muy ci wàllu leer waaye itam alamu jalaal ñëw na mu ne ko anta wala di xàqan alamul ilmi ñëw na alamu jamaal ñëw na mu ne ko anta wala di xàqan kon man maay muhammad yaay ahmad ahmad muhammad muhammad ahmad masala nuurihi boobu alxuraan di wax ka mishkaatin fiiha misbaa almisbaahu fi zujaajatin zujaaja ka annaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytunatin laa sharqiyatin wala xarbiya yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsashu naarun mooy lañu gis waaye nuurun ala nuur mooy li ñu bokk yàlla ni kuy jëlati wérd yahdillaahu li nuurihi man yashaa may giddi ku ma neex jëmale la ca la tuddee la vraie lumière Mawlaay Cheikh a Tijani Chérif fa la koy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe wérd ba moo tax ku laaj fa mu jóge ma ni ñëwal ma wax la fa mu jóge maa lay wax fa mu jóge fa mu tàmbalee ba na mu wàcce mu jox Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani wérd tariqa bi retour ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko waxee ñetti anta walidi xàqan ya wax Cheikh Tijani Chérif ni ko may naa la baati nag basiira bu tolloog ak Fathul Kabir la ma doon organiser ca sama siège lépp sa bëtang ca tegu ni Cheikh Tijani Chérif moom yonent bi mooy wax ni ko laaj ma benn question ma jox la benn réponse Cheikh Tijani Chérif ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na nga bëtte shahaada ñëw ci man ci turu Ahmad moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di ko woowee Seydi Ahmad jotewul dara sax ak li Isaa ibnu Maryam waxoon ca turu Ahmad ba moo tax Cheikh Tijani Chérif di woowee yonent bi Seydi Ahmad mu ni yonent bi benn question laa lay laaj comme benn réponse nga may jox. sett hijaab ya lu tax aspiré woo leen yonent bi ci shahada laa wax la taxaw joxoñ Cheikh Tijani Chérif ne ko xoolal ca xayba sama siège déglul hijaab yooyu nga xam ni aspiré wu ma leen la jàng cheikh ni nuy tourné ak baatinam bu yaatu ba xool hijaab ya dégg kenn ku nekk yaa ngi jël jamono jooju amoo loxo donte jëmmi Muhammad nga taxawe mais wàll ga waroon nekk sa loxo ndeyjoor laafu malaayika la ko yàlla misaale woon nga taf ko sa dënn cheikh dégg leen ñu naan allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutati l mutahaqiqati l jawharatul la ñuy jàng cheikh di leen déglu fii kenn kii di jàng bu jàngee ba noppi noppi keneen ki jëlati jàng noppi keneen ki jëlati jàng noppi ba ñu àggalee juróom-ñaar ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëcc ci Mawlaa Cheikh Ahmada taf ci dënnam ñu lëngoo ñoom ñaar cheikh ni ko bëgg naa ci yaa seydi yonent bi ni ko du pour yow de juróom ñaari yi moo tax sa taalibe ba nga jox wérd bi mu am ci ndigal su toogatee ci malaanu wasifa bi jàng juróom-ñaari jawharatul kamal bu ca àggee ma ñëw garanti baa ngi noonu ki laaj lu tax bu ngeen àggee juróom-ñaar muy ñëw indil ko lii garanti la waaw boobu ñu ngi en direct ak nañ doon officialiser lañoo ñoo tuddee tey le wér de Tidiane te gis nga alam yooyu ak seen xaqiiqa yàlla organiser waat na lu mel noonu ci 325 xutbu zamaan yi bu zamaan yi nga xam ni ñoom ngay dégg ñu wax la ni ñii ñooy bu jamono xalifatullahi fil ard yàllaa ngi jël kenn ku nekk tëgg sa leer sa leeru wilaaya laa wax mooy leer gi tax nga mën a tenir discours ba guddi aljuma ca xadaratul ilaahi yàllaa nga tëggee seen leer ñoom ñépp kenn ku nekk ci alif lam miim ba mu des kenn alif ba mooy nuuru alif mooy nuur bay représenté xutbu bi ca kaa bëgg ca màkk jëmmu lumière am du fa jóg làmba muy nuuru làmba mooy lay représenté xutbu bi ci raw du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Médine jëmmam du fa jóg li nga xam ni mooy miim ba mooy représenté xutbu bi ca masjidil aqsa nuuru miim ba mooy xutbu zamaan bi yàlla tëgg ca trois cent vingt quatre ya ñoom ba mu des kenn ka mujj te yore mission axiru zaman moom la yàlla tëgg ca leeram alif laam miim saad alif bi di nuuram représenté jëmmam ba nekk ca kaaba ga nuuru laam bi représenté jëmmam ca raw du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Médine nuuru mim ba représenté jëmmam ca masjidil aqsa fa isa ibnu mariam denc sekkereem fa lay taxaw léegi nag mu des nuuru saat ba nu ni roxam la boo xam ni dañ ko booleeg dencam muy sekkereem suul ko ca suuf soo xam ni soo gasee 9 mètres gis ndox dafa am fu ñu ko war a denc de du fépp lañ koy denc dañ ni saat ba rooxam la représenté ak sekkareem ba muy doxee mission dañ koy denc ca suuf soo xam ni soo amoon tey ku lay nattal boo gasee gasee gasee un mètre doo gis ndox deux mètres doo ko gis trois doo ko gis quatre doo ko gis cinq doo ko gis six doo ko gis sept doo ko gis huit doo ko gis boo gasee neuf mètres ndox ma ball suuf soosu la ñuy wër ci àdduna suuf soosu la ñuy wër ca réewam suuf soosu la ñuy wër ca dëkkam suuf soosu la ñuy wër ca këram ba fu mu nekk ñu denc ko fa digganteem ak ndox muy ball 9 la war a doon warul doon 10 mètres warul doon 8 mètres xëy ba dañ ko natt ñu jël leer googu def ko ca alif lam mim saad yeneen leeru xutbu ya ñu def ko ca alif lam mim moo tax xutbu fu mu mënta nekk ci àdduna nuuram di leeram boo xam ni day ànd ak ijaabu jëmmam bii ma nga ca Kaaba ga 24 heures sur 24 du fa jóg bii ma nga ca rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Médine 24 heures sur 24 du fa jóg bii ma nga ca masjidil aqsa ndax dencu Isa ibnu Maryam fa la nekk 24 heures sur 24 du fa jóg xutbu bu mu mënta doon laa wax mission aaxiru zamana tax nu boole ci saat ba ak la saat ba ëmb ndax gis nga saat ba la mu ëmb suuf sañ ko denc te doo gas 9 mètres te gisoo ndox. la ñu denc ca biir boo ko génnee loolu mooy asiewu la ñu denc ca masjidil aqsa moo tax relation ak Isa ibnu Maryam muy nekk benn relation boo xam ni la ma misaaloon ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ak yonent bi relation wu nuurun ala nuur la waaw te yahdillaahu li nuurihi man yasha mooy compagnon bu ñuy dugal ca noon nañ lay dugalee léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu joxee Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif xaqiqatu muhammadiya boobu di tariqa tijaniya ñu xool la nga xam ni moo ëmb xaqiqatu muhammadiya ba ñu gis ni dañ ko basé ci ñeent benn bi yóbbaalewul kenn mooy fatihatul kitaab dafa nekk singulier fés moom dong ba noppi fees palaasam kenn mënul xëccoog moom beneen ba ñëw yóbbaale muy istixfaar astaghfirullah al azim allazi laa ilaha illa huwa al hayyul lan la yóbbaale mooy ki koy jàng dafay aspiire say bàkkaar di génne bàkkaar yi benn par benn na mu melee ni ku soloon bàkkaar ba fees rek jékki sa mu am loo xam ni day ñëw di ko aspirer su ko génnee da koy burusu su burusee bàkkaar yooyu du nekk loo xam ni su ko burusee rek bàkkaar yi day réer déedéet réerul yàlla dafay yabal benn malaayika malaayika boo xam ni ñu ngi ko bindee ci miim ak ci nuun miim boobu ñu bindee ko ca lay jël bàkkaar yi mu aspiré moom istixfaar ba denc ko ci biiram centraliser ko ci tabletu nuun tabletu nuun boobu boo demee xay bu loolooy far bàkkaar ba sa misaal ca jamono jooju mooy li yaafira laka allaahu maa taqaddama min zanbika wa maata taaxar alxuraan laa lay wax de waaw mooy yàlla ca jamono jooju daf la jéggal ya nga jotoon def ak même ya nga defagul xam nga daañu jéggal nit bàkkaar nga dem xay bu gis ni jéggal nañ ko bàkkaar waaye bàkkaar baa ngi fi donte jéggal nañ ko ko bind nañ ci ni jéggal nañ ko ko mais mi ngi fi taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ca gaaranti boobu bu jàngee astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al hayyul du ñu yem ci aspirer bàkkaar ba mais bàkkaar ba dootul exister ndax la jiitu woon lañ ko jéggal bala mujj la moo tax miim ak nuun miim ba jëmmi malaayika la nuun ba tablette la ca la koy centraliser effacer ko pour toujours dootul exister moo tax ñu ni deuxième ba dafay yóbbaale donte première ba moom yóbbaalewul kenn mooy fatiha ba beneen ba ca des nga xam ni mooy salaatul fatiha dafa am lu Cheikh Tijani Chérif waxtaan ak yonent bi Cheikh dafa ni yonent bi yàlla mbooloom kàddu gu mu tudd ci alxuraan su may tànn volonté man Cheikh kàdd googooy doon sama yitte waaye nangu naa sama volonté man Cheikh Tijani di benn baat bu yàlla wax muy la mu ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima cheikh ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma bëgg mooy sama kanam ak sama misaal ak ba ci sama gaarante ak sama melokaan mooy su ma taxawee yowmal xiyaam nañu wane ni man mii kat dañu ma woon mukk di jóg di jël ay yiw di la ko yónnee mooy di julli ci yow waaye itam sama compagnon muy ñu ma àndal sama taalibe kenn dañu ci di jug di julli ci yow di la ko yónnee buy garanti di am nañ ma garanti lool yonent bi ni ko kon da ngay séddale salaatul faatihi juróomi aaliwa ya mu wàcce woon ca xayb te nga yónnee woon indi ka ca yax ba allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi li ma uxliq walxaatimi li ma sabaq nasiri alxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم gis nga loo tax imaamu Bikri bu taxawee yowmal daa ñu wax ni zikir na salaatul fatiha waaye ca moom la yam amul benn compagnon buy taxaw ñu naan waaw compagnon imaamul Bikri bi zikir na salaatul fatiha ndax juróomi aliwa yee taxoon allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi li maa uxli allahuma salli ala sayidina muhammadin walxaatimi li maa sabaxa ba juróomi aliwa yi di ma séddale boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax cheikh ni ko comme da nga bëgg soo taxawee ñu garanti la yow garanti waale say compagnon ni ñoom ñëpp respecté nañu yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nangul nañ leen garanti bi jànge ko nii ci yàq cheikh jàng salaatul fatiha ba moom ba àggal bàyyi taalibeem yi ñuy jàng salaatul faatiha waxuma yóbbaale leen ñoom mais muy yóbbaale képp ku leen yéene yiw moo tax gis nga kuy jàng salaatul faatiha ñett nga ci moom benn mooy rooxam na bët fàddoo ci mën a xool yonent bi ci vraie lumière noonu la rooxam di melaxe moom miy jàng salaatul faatiha bët fàddu na maanaa ci ni tey jii tële na moom bët ni teg bët rooxu kuy jàng salaatul faatiha ñu nangu ko ndax na rox ba di leer beneen leer ga mooy leer ga nga xam ni day fees ci yaramam bu boo ko gisee day bëbb ci organismam kanam nga day melax xol ba day melax bët ya day melax xam-xamam day melax xam day melax shahaadaam day melax nit kooku nitu kan la nitu leer la ndax nitu leer ay melax nitu leer ku raxul lëndëm waaw ñetteel ba mooy lan mooy ñetteel ba képp ku am cafeel ca kooku bokk nga ca yëw moo tax bul bañ mukk kuy zikr salaatul fàtte waaw ndax képp ku sopp kooku yow sa boppam bokk nga ca yiw ba ca garanti ba la bokk muy xaqiqa salaatul faatih Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan it waxaat yonent bi ni ko dafa am lu yàlla symbolisé muy pureté ak grandeur yàlla dafa am ñetti base yoo xam ni daf koy bàyyi xel bi ci jiitu mooy saa sainteté sa pureté ak grandeur moo tax mu indi xul huwa allahu ahad munoon na yam foofu ñëpp xam nañ ni kenn la lu tax mu indiwaat allahu samat fee sa senteté lay indi fii sa pureté lay dëggal dellu ni lam yalid walam yuulaat indi grandeur am walam yakun lahu kufuwan ahad confirmé grandeur am ci suratul ixlaas Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko comme wax na moom borom bi ni fax la mu annahu laa ilaha illa allah sama bos doyatuma bi nga jàng ma doy sama bos doyatuma bi bi nga jàng doy waaw moo wax naa ko sa rifisk waaw ni leen ku mu neex dóor sa dënn ni sama bopp laa gëm man gëw ma sama bopp Cheikh Tijani Chérif laa gëm ndax Cheikh ca waxam moom déggoo lu mu wax yonent bi déggoo xanaa la mu wax yonent bi wala amoo nopp booy déggee dafa ni ko fahlamu annahu laa ilaha illallah sama bos doyatuma sa bos moo ma doy waxal laa ilaha illallah garanti ma yonent bi ni ko ci sa dënn bu yaatu garanti naa la laa ilaha illallahu bi may wax waaye su ko say taalibe yi waxee ca laasim wala ci malaanu wasifa day mel ni man yonent bi maa ko wax fu nu jële ngëneel googu fu nu jële ngëneel googu moo tax ki dox ba yàgg ni jërëjëf Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moo ko war waaw moo ko war de ku la ci yedd moo xamul leer yow nga toog fii di laazim yaa ngi sa néeg de wala yaa ngi ci benn place ak place bu mënta doon nga ni laa ilaha illallahu yonent bi ni la maa wax sa làmmiñ ngay wasifa ci mbooloo ni laa ilaha illallahu yonent bi ni comme garanti naa ko Cheikh Tijani Chérif maa wax sa làmmiñ nga wëlbatiku laaj ni waaw luy làmmiñu yonent bi ñu ni la kontaan nga kat yiw yi bare na kat waaye des na de ñu ni li des ñu ni xam nga luy làmmiñu yonent bi ngeen déedéet ñu ni déglul wa maa yantixu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon làmmiñu yonent bi mooy làmmiñu yàlla alxuraan laay wax ba léegi di man kay ba léegi maa ngi firi alxuraan lay firi lu ma wax preuve à l'appui la yaa jaaxle ni lan mooy làmmiñu yonent bi di kontaan Seydi Ahmed ni làmmiñam toll ni leer ga toll ni xaqiiqa ba toll ak lañ ma ca nar a fay yépp muy wax ci sama làmmiñ ñu ni yow kat kontaan nga waaye des na di xam nga luy làmmiñ yonent bi yàllaa ka garanti wa maa yantixu anil hawa in huwa illaa wahyun yuha yàlla nee na du wax ci bakkanam moom bu waxee maa wax waaw kon bu yonent bi sallallahu alayhi wa wéetal yàlla yàlla moo wéetal boppam yàlla yàgg na wéetal boppam wax naa ko mbokk ni ko gis nga léeg nga dégg yàlla xëy ni wa shamsi tafsiral ma mu ni giñ naa ci jant bi ma ni ko déet waxuma yow yaay wax de te yow boo doon wax yàlla tere la nga giñ ci leneen lu dul moom yàlla laa wax dafa ni giñ naa ci xam-xam ba ma bindee jant bi ci kan la giñ mu ni ma ci boppam ma ni ko ma nga noonu yàlla day wéetal boppam man day jékki saa wane moom yàlla mooy kan dana ko def àdduna dana tukki pendant quarante jours nit du am jinne du am malaayika du am gàncax du am dara du am bés bu xëy yàlla interroger ni ana kuy buuru tey ana kan mooy dund tey ana kan moo fi nekk tey di superviser ana kuy commandé kenn du répondre mu ni allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad waaw delloowaat boppam la tuddee mbàttuma ca ndaa la mooy la mu moom moom borom bi waaw Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani yonent bi garanti ko laa ilaha illallahu boobu yamul ci moom mais taalibeem ya kay wax ca malaan mu wax ca seen làmmiñ ak cadre ba na mu mu jékki saa indil ko nag sànni tàccu ba moom la ko wolof tuddee ñuy wax la perle de la perfection ñu ni jawhar ba ñu ni lan la ñu ni l'antimatière ñu ni ndax dans la matière la ñu ni ah dans la lumière l'antimatière dans la lumière walla wala matière au cœur de la lumière wala l'antimatière sous couvert de la lumière ñett ya jawharatul kamal waaw gis nga bi jawharatul kamal ñëwee nag mbooloom lañ doon gëstu tegoon ko ci principe bu wàllu yiw tegoon ko ci logique gu wàllu cër tegoon ko ci ngëneelu wàllu martaba keroog la mot alam yi yonent bi amoon ca siège la jël muy alamu jalaal beneen ba di alamu jamaal beneen ba di alamu kun fayakun te ñu tuddee ko ahmad moom la yonent bi génne leer ya ca ne kon kay la mu jàngoon la wax naa la moo aspir ay hijaabam hijaab yi du moom la woon moo bëbaat hijaab yi euh, ñu génn leer ga génn nekk ñetti hijaab yi yooyu la bëtt ndax moo doxoon ci digganteem xayba ak shahada yooyu la yonent bi génne nag garanti ko lumière u jawharatul kamal gis nga loolu moo indi jawharatul kamal benn per bu nekk douze mil malaayika wax naa ko lu dul benn du ñaar ñoo koy gàddu di yóbbu nit ki laaj ni waaw douze mille malaayika euh, nu nuy gàddoo benn per du yóbbu ma laaj ko benn laaj ni ko trois cent mille hijaabu yonent bi na ko benn malaaka di àttane douze mille laa wax da ngay ma ni trois cent mille la aspiré bàyyi set te leer yi nga xam ni moo dugg ci ruuxam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëbbaat leer yi génne ko leer yooyu moo créé hijab ya benn bu nekk taxawe alam alam bi ñu ni mooy alamu jalaal alam bii ñu ni mooy alamu jamaal alam bi ñu ni mooy alamu kun muy diggante yaa jalaal yaa jamil yaa ahmad secret xayb la waaw Cheikh Tijani yonent bi wax ko ni ko sa taalibe bu jàng benn per ci jawharatul kamal lii ci lumière lañ koy fay ca benn per ba waaw waxuma juróom-ñaari per de wala fukki per ak ñaar dafa ni ko sa taalibe bu jàng benn per ci Jawharatul Kamal lii ci lumière lañ koy fay ca benn per ba kon taalibe cheikh bu ñu nangul fu mu fu mu jëm ak leer waaw benn alam dong mën nga ci séddu yow leerlu ci ba leerlu ci ñu bëgg leer wala mi wax fii jamono ni ku bëgg leer danga leer ku bañ leer danga leer ñu naan déedéet ku bañ kay daf ko war a bàyyi noonu ma ni dama mënul téye sama leer moo tax même ku bañ leer da ngay mujj leer waaw ndax leer gee bari du dama ko wax rek pour leeral ku bañ leer dama mënul téye leer ga ndax dafa bare xoola bii benn perl di waaw benn perle taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani jàng ñu garanti ko ci ñetti alam yoo xam ni alam bu ca ne yonent bee ko liggéey aspiré hijaabam ci leeru basmala bismillaahi rahmaani rahim bii di alamu jalaal bii di alamu jamaal bii di alamu kun fayakun ñu tuddee ko ahmad jamil jalaal ñetti xaqiiqatu muhammadiyya yaa ngoog ñu ni benn perle la ñu wax ci jëw jawharatul kamal ñu ni su demee nag ba àgg ca juróom-ñaari yonent bi ni dootuñu natt mu ni lu tax dootuñu natt mooy su àggee juróom-ñaari peru jawharatul kamal ya nee na man yonent bi di Muhammad ngeen xam ma man maay ñëw ànd ak samay lumière ya nga xam ni ñoom laay àndal teew ca palaasam mu ni léegi nag laaj leen ki yonent bi ñëw teew ci kanamam teew ci malaanam kooku fayam na mu toll ñu ni kan nan la ñuy fayee moom Cheikh Tijani Chérif laaj ko ko yonent bi nii dañuy laaj ki nga xam ni moo ma bind di sama borom lu ma ko jaral man cheikh ni ko kooku de mokkal naa ko ñu ni ko noo ko mokkale mu ni ca salaatul fatiha laa julli ba jékki saa ma bàyyi noonu kat ni nii nii la toll ñu ni ko foo ko bàyyee mu ni ba ma demee ba ca xàq qadarihi wa miqdaarihi al azim dul fatiha kenn werdul lu mel ni kii moom màggal ka loo ma sa man te bul ko caaxaane waaw waaw kenn werdul kon màggal ka walli yu bëggal gëmal màggalal soppal weegal teeralal mboolem walliyu yi ko santaane salaatul faatiha kenn werdul diine màggal ka tant bi def leen ni yaa shaykhana sayyidana leer ga jolli na fooxol moo fa baawaare salaatul faatiha wax leen kenn werdul lu mel ni kii waaw màggal ka loo ma saman xaritoo bul ka sunu ak Seyxu Tijaan salaatul faatiha walla ca ka kenn werdul tant bi ni màggal ka ma sa man xaritoo bul ka gaañ ni mboolem waliyu yi man naw naa ca yàlla wax leen gannaaw ba jaayante naag ak Seyxu Tijaan salaatul waaw kenn werdul lu mel borom medinatu magal ko loo ma sama xarit ku sopp sant bi defal ni loxo mboolem waliyu yi man naw naa leen fa yàlla bu ber gannaaw ba jaayante naag al almuntadar salaatul faatiha waaw kenn weddul lu mel ni kii wax leen màggal ko loo ma saman xaritoo waa kaw murin loxo ca kaw mboolem walli walli naw naa leen ca yàlla bu baax gannaaw ga jaayante naa almahdi almuntadar salaatul faatiha waaw kenn weddul tant bi def leen nii màggal ma sama xaritoo bul tarti bi def leen mboolem waliyu yi man naw naa ca yàlla bu wér gannaaw ga jaayante naag almahdi almuntazar salaatul faatiha way kenn werdul lu mel ni ki wax leen màggal ko loo ma sama xaritoo bi la xoy ca kaw mboolem waliyu yi naa leen ca yàlla bu wér gannaaw ba jaayante naak almahdi almuntada salaatul fatiha waaw waaw kenn weddul lu mel ni kii moom màggal ko loo ma saman xaritoo bul ko caaxaane barakallahu fika li mu wax du dañ dafa xam Cheikh Tijani waaw gaa ñi dañoo xam Mawlaaye Cheikh Ahmed Tijani waaw moo tax daanu wax sax wala nu bind nga ni xaal déedéet du xaal dañuy seede li ñu xam waaw xam nga nettali naa leen dama leen di wax ndax ñett laa waxoon di dama ne dama leen di nettali wax leen relever le défi. li ma leen di wax mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti Mawlaay Cheikh Ahmed foofu te biñ koy officialiser ca shahada lañ ko officialiser jiitu na shahada ndax xaqiqa la mooy la ñuy werante tey xutbaanu yi ñii naan déet xat mi bi kat nangam nangam ñi naan kat mi moom kenn xamu ko ma ni bàyyi leen naan kenn xamu ko wax leen kat mi xaw ma ko. soo leen laajee ñu ni waaw kat miya yonent bi moo ko xam euh, ak yàlla ñoo ko xam ci Cheikh Tidiane ma ni kiy wax ak yonent bi nag laayif leen kiy wax ak yonent bi nag laayif leen baa ngi ni toog jox naa leen laay yonent bee wax Cheikh ni ko alam ba ñoo tuddee alamu jalaal génnagul alam yi de yonent bi kuy xam moo la jàngal kuy am xam-xam bu dee xaqiqaak bu dee shariaak bu dee leer bu dee lu mënta doon ci yont bi la source ba moo tax mu wax rek génn alam day mel na dafa soxlawaat leen déedéet benn wax mën na ca fanaan mu ni alamu jalaal mu ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani garanti naa leen ko cër ba ñoo tudde secret ba ñoo tudde xutbaani yu ba ñoo tuddee xutbatul uzna loolu lañuy ñuy wax xatmiya xanaa xamoo xutbaani boo dégg moo tax ku ni ma amee naa xut bu nàngam laaj ko ban alam moo ko garanti xutbaani yu boo dégg am na alam bu ko garanti waaw ku woote xutbaani yu ba te xamul alam bu ko garanti c'est parce que yorul xutbaani yu xutbaani yu bi garanti la ñoo tuddee tey xatmiya muy xutbatul uzna mooy alam ba nga xam ni moom la ñoo tuddee alamu jalaal moom la ko yonent bi garanti moo tax fa mu toll mu wax ni yëkkati naa sama ñaari ndëggu tànk teg naa ko ca jamono aadam ba kañ ba ba ñoo wal buuftu ba waliyu bu fa ñëwati topp sama suufu ñaari ndëggu tànk dëgg la xam nga lu tax aljalaal kan mooy jalaalanteeg jalaal déedéet kan mooy jalaalanteeg jalaal kàllaama xëy bu laa leen wax de kan mooy jalaalanteeg jalaal kenn xam nga lu tax tur bi nga xam ni moo mank loolu ko ca kaw kenn niiru ko kenn amul mérite ba kenn amul grandeur ba ku dul borom bi te borom bi ku mu yëkkati nga yëkkati ko te borom bi moo fortifié tur ba tuddee ko zul jalali wal ikram détenteur de la majesté et de la générosité ñu jël alamu jalaal alamu jalaal bi garanti xutbaani yu ba ñoo tuddee xutbatul usna moom la ñoo tuddee xatmiya yonent bi jël la ñoo tuddee katmiya l'intermédiaire direct entre la lumière di prophète de l'islam Sayyidina Muhammad et les autres prophètes moo tax Cheikh Tijani yombal ligne ba waxoon naa ko gaañ ni bàyyi leen jaaxle ci toog ak yonent wala connecté wu leen wut leen connexion salaatul fatiha ngi fi di connexion direct xam nga ki connecté wul ba noppi naan mënuma dugg euh, internet connecté wul connecteel ci salaatul fatiha. yonent bi moo garanti Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la ñoo tuddee katmiya katmiya mu génnee ko ca xutbaaniyatul kanzam xutbaaniyatul kansam ña ngi ko tànkee ca bahrul kanzi mu jël loolu dugal ko ca jamaal ba nokk yokk ca kamaal gis nga jamaal ba muy tur yàlla ba ñoo tuddee yaa jamil bu doon loolu boo ko sikkaree da nga xam la fa xew mais dafa ca yokk kamaal la kamaal nag moom la gaañi ni ca rooxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk ku mu ko tëfliwul sa dopp doo xam loolu lan la xutbaaniyatul kanzam bahrul kanzi bañ ko tànke ko ñu ko sotti moom mu yor ko moom waxuma day dem di wuti leer leera yu wër di ko topp mu ngi mel ni nga yore acier romb ay aimant nii di def nii da ngay gis aimant yi di tëb benn par benn di dal ci acier yi noonu la xutbaani yu boobu mel mooy kat miya ba mu jël ko dugal ko ca alam ba nga xam ni moo doon alamu jamaal ba waaye nag indi kamaal ba yokk ca kamaal ba nag mooy secret ba waaye jamaal ba du secret ba ndax jamaal ba turu yàlla ba ñuy wax jamil la correspondre la lan la kamaal ba correspondre lan la kamaal ba am na correspondance correspondance su ba moo jur la ñoo tuddee tey jawharatul kamaal soo demee ba ca siraatika taamil asxam nuuril mu talsam ifaadatika minka ilayka ihatati nuuril mu ak biha iyaahu salaatun tuarifuna biha iyaahu foofu laay yem ak gaañ ñett laa leen tuddal de ci jawharatul kamal kamal bàyyi problème jalaal bi du problème jamaal bi du problème jamaal ba mook turu yàlla bi correspondre rek yaa jamil ñoo yam secret ba fa la ne boo jëloon yaa jamil tarbiya ko nga commencé gis leer ga waaye leer ga nga xam ne ndeke xutbaani yu boobu alam ba ko denc yamul rek ca alamu jamaal ba dafa dem ba ca kamaal ba kamaal baay secret ba secret boobu ci biir jawharatul kamaal nga koy xoole waaye nooy xamee al asxam siraati kataamil asxam noo koy xamee nuuril sam noo koy xamee biha iyaahu ba ko jeexal nag nga xam ne boo ko waxee rek jeex na secret yooyu benn bu ca nekk dafa mel na benn terrain boo xam ni dafa am superficie bu ñu wax bu ñu ko destiné terrain boobu awliyaa ullah yépp ca lañ doon dox da ca dox di ca dox di naan leeru yàlla di ko jàng ba lañ doon naan jeex ca ñoom leer gañ doon xool sut leen Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani des détenir alam ya moo tax bi yonent bi sëppoo alam ya nag ñu ni l'intermédiaire entre le prophète de l'islam sayyidina Muhammad et la lumière des autres prophètes mu nekk seen intermédiaire ñu tuddee ko katmiya moo tax ki ko xamul xuusul foofu mu ëmb alab boobu yonent bi jël xutbaani yu boobu nga xam ni tey moom moo ëmb katmiya ëmbe ka alam boobu nga xam ni mooy alam bi ëmboon jamaal waaye nag dolli ca kamaal muy secret ba waaw bàyyi yàlla ba ñuy wax jamil mystique ya jël ka dem ba ci biir xuus xuus xuus xam ni duñ ko jeexal ñu dellu ca jawharatul kamal décrypté décrypté Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani génn ak xadaraam leer ga doy leen ba seen bët xoolatul leneen moo tax benn mbokk ma soon ko wax sëriñ Abbas Sall ndeysaan xool ko ba yàgg ni ko góor gi di ko laaj euh, beneen kilifa sëriñ Abbas ni ko ku gis cheikh nooy xoolee leneen ni ko ndax yow mi muus nga sëñ Abbas xam nga ku mu daan waxal tuut daf lay way ni ko ndax yow muus nga mu ni ko sama muus mooy lan mu ni ko jant ngi nii nga di ma laaj biddéew waaw ndax naa seen jant di seen biddéew waxatuma laaj di seen weer bu jant génnee leera muur na yooyu mu ne ko jeex naa ci Cheikh Tijani ba loolu laa soxla ci moom moom laay gis-gisatuma dara mu ne ko fu mu ne mu ni sama ndeyjoor sama càmmoñ sama kanam sama gannaaw lépp Cheikh Tijani Chérif la mu ni ko lu tax mu ni ko moo may dundal ci leeru yonent bi waaw Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijaani ci dara jaam waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jël xutbaani yooyu garanté ko alam yooyu xutbaani yu boo gis am na alam bu ko garanté te gis nga alam yooyu boo ko delloosee da ngay gis ni synthèse bi yëpp lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ca la Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijaani nag amee la ñoo tuddee officiellement suprématie légendaire suprématie légendaire boo xam ni boo nee wa min ka daa ko ci dugal. kat mi yaa tax l'intermédiaire direct entre le prophète de lislaam et les autres prophètes boo indee aw u yi daa ko ca dugal réalité ba mooy mooy tabbu mooy sànni lumière ba ñuy nangu fuyu daal ya di àgg ci yàlla nga dem ba ni adduratul bay daa ñun la fu mu tegu woon soxlawul nekk ca doj ba compagnon am ñoo nekk sa doj ba soxlawul formule ba ndax moo tëgg formule ba Cheikh Tijani Chérif moo tëgg formule ba waaw formule u adduratul bayda Cheikh Tijani Chérif moo ko tëgg xam nga formule u adduratul bayda lan la xasba bala sóor bi nga xam ni mooy sóoratul mulki waxuma sóoratul mulki comme tabaaraka lazi bi yadil mulku de ba ñuy jàng tuddee ko verset moom laa doon tafsir daaw Dakar xulillahuma malikal mulki tuuti mulka man tasha ila dugal latiif dugal salaamun xawlan min rabbin rahim dugal ixlaas mooy formulu addurratul bayda cheikh ko tëgg zikir la zikir la waaw zikir la formulu addurratul bayda zikir la waaw nombre usitem 92 la plus 92 ay chiffres laa leen di jox de moo mën inaa précis dugal 92 plus mille après mille plus cent vingt 129 après 129 plus jawharatul kamal moo ma mën loo de <laughs> dama bëgg bu leer werante waxtaan yee bari formule formule damay leeral formule formule da ngay leeral formule lan la 92 la mooy chiffre ba. plus lan plus 92 fekkee maîtriser wu ma ko kay kon kay boo ko xool naa juuma après 92 plus 92 plus 1000 après 1000 plus 129 plus jawharatul kamal na kenn defar euh, formule répétée mu xool chiffre du noonu de léegi nag la des mooy 92 ya xam naa ñenn ñi dañ naan Mouhamad déet waxu ba leen Mouhamad formule la. 92 ba ca topp dañ naan Mouhamad waxu ba leen Mouhamad formule la 92 ya mujj dañ naan Mouhamad waxu ba leen Mouhamad formule la 1000 ya dañ naan lii la formule la 129 ya dañ naan xam naa ca latif lay dellu formule la plus 1 jawharatul kamal la neex da wax nga dajale loolu mooy formule adduratul bay da Cheikh ko tëgg moo tax gaa ñu ni gaa yi xëccoo nañ formule ba mu ni mën na feeñ mën nañ ko yor waaye Cheikh moo tee doj ba adduratul bay pour nga xam suprématie légendaire am xaqiiqaam moom waaw te lañ leen di nettali ca wàllam loolu la léegi nag li des ndax dama waxoon wax wax bi du gudd te baa ngi bëgg guddal mooy dama wax lañoo tuddee relever le défi gis nga relever la defi yomb na ci bu jamono yëpp leeree xam nga kañ la jafe bu jamono yëpp lëndëmee waaw te xam nañ ni toll nañ foofu gis nga ñi nga dégg maanaam ñuy contester lumière wala di contester tariqa tijaniya wala di contester suprématie Mawlana Cheikh Ahmad Tijani wala nitu yàlla yi dañu deful seen liggéey rek waaye am na liggéey bu leen doy sëg gis nga la yàqu ci réew mi kenn xamul na mu tool la gën a yàqu sooy defar ca la gën a yàqu nga war a tàmbale di defar di defar di defar dàgg lu rafet ba noppi kenn du ko nekk naan da nga koy defar ndax rafet na lu baax ba noppi kenn du ko defar baax na li baaxul la ñuy defar relever le défi ma nga jafee ca bu lumière néewee bu ñi nga xam ni dañoo leerlu gëlëmee bu ñu nga xam ni dañoo gag ci wàllu xam-xam baree ci àdduna foofu la relever le defi jafe xam nga nag man nan lay relever le defi maa daan tarbiya nit man maa daan tarbiya nit damay wax ci la passé ndax dama décider projeté wu euh, ci le futur maa daan tarbiye nit mu am tuuti leer wala dem ba am leer wala dem bay gént leer wala dem bay yëg leer di ci jaaxle di ci jaaxle di ci jaaxle jaratu ko ma tarbiye nit mu dem ba am fatu fatu ba jaaxal ko ba tax lu mu gisati yéemu jaratu ko fi ma toll la may relever le défi mooy dama yamatul ci defar nit rek mu ni taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tidiane damay defar wëli yàlla ci réalité muy dund lumière mën a yëg réalité yi nga xam ni mooy fuyu daal yi jóge ca xadaratul ilaahi waaw loolu mooy sama défi léegi waaw compagnon wala taalibe bu topp lu de conduite bi ñu ko wax su àggul niveau boobu na woote ni niveau boobu mënuma fex ba àgg wala fexe mu ba gis ko waaw waaw parce que booy joxe lu wóor da ngay ñeme la ngay joxe bàyyi nee na woo nit naan ko àgg nga ci yàlla sonal sa bopp la ki àgg ci yàlla moo koy yëgal boppam waaw woo nit téléphone allo mu ni allo nga ne ko àgg ci yàlla da nga koy nax ki àgg ci yàlla mooy am yàqin ba ni may relever la defi nag mooy àdduna toll na foo xam ne lëndëm na toll na foo xam ne réer bare na toll na foo xam ne gag bare na jaaxle bare na danaa yore flambeau bi di niite ba deux mille soixante-quinze ku ñu niite sa kanam niite sa roox nga nekk wëli yàlla ku ko mën defal boo ko defee da may dimbali ci mission bi de waaw waaye li ma yëg ci xaqul yaqin mooy def ko du noonu de waaw waaw ku ko mën nag defal boo ko defee da may dimbali ci mission bi waaye falaam ba danaa koy yore di niite ña bëgg leer di leer seen rox di leer seen xol di leer ñu leen koy niite ñuy nekk ay wëli yu yàlla kaamil di xëy di la romb di xam loo xamul di wax loo waxul di yëg loo yëgul di dund loo dund nga toog naan mënul nekk ñoom ñuy jëf nga naan mënul nekk ñoom ñuy wax nga naan mënul nekk ñoom ñuy dox nga di leen xool di leen xool ba gis nu tàllal seen malaan ba kaaba gaa ngi nii jàkka jaa ngi nii naasiril xaq bil xaq ngi nii nga soogay nag ni mën na nekk fee si fekk c'est trop loolu lay relever le défi waaw waaw man du ma relever défi moo ko ci ay affaire u nii laag neeg weeranteeg enfantillage leneen dañuy wane réalité xaqiqatu muhammadiya nga koy yëg waaw waaw waaw nit ñi di ci jëriñu ba nga ba nga ba nga xool nit ñi nga xam ne ñii ñii ñooy gaaya waaw waaw ak seen leer ak seen yaqin ak seen yiw loolu nag ci kan ci barke Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani ci barke Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani Chérif waaw gis nga jotaay bii nu toog am na ñoo xam ni samay soppe lañu ñi ngi fii am na ñoo xam ni samay disciple lañu ñi ngi fii am na ñoo xam ni samay compagnon lañu ñi ngi fii am na ñoo xam ni dañu seetaan si barewuñu waaye ñi ngi fii am na ci koo xam ni dafa ñëw pour xool kan mooy El Cheikh ak lan lay wax tey bu demee mu waxtaan ci mu nga fële ci gannaaw su dul woon kerse wala li ma leen wax démb ni duma ma xotti xorma ma ni diw ñëpp gestu ni kan la muy xoole di xoole ni xam nañu sama tur karaamaat daf ma taxul jóg dama bëgg wax ni maanaam loolu ma lim sax limu ma ko pour nit ñi jaaxleeg wala keet geesu kee jaru ko dama bëgg wax ni gis nga ki ñëw pour seet si wala ki ñëw pour xool si këy el cheikh wala nga dem pour am la nga wax ca moom musalal sa bopp ndax sa texe xëj na fii xam nga nam fa xëje mooy bi ñuy wasifa cheikh dafa ñëw xar jaww ji tàllal mantoom ndayjoor tàllal mantoom càmmooñ sotti leer gi te limité may leen ba déggu leen bu baax li ma wax dama ni leen bi nuy wasifa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif dafa ñëw xar jaww ji tàllal mantoom ndayjoor tàllal mantoom càmmooñ sotti gi te limité wul dafa daan limité daan du laal nii bii ñëpp la laal moo tax ñu bëggoon wax wala laajte El Cheikh texe ngeen ku texe nag dañ koy jàngal Fatiha mu ñibbi lu waxati mu xam ne texe na <laughs> jërëjëf voilà jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu jàng Fatiha tëje ko salaatul Fatihi ndax ki texe ba noppi jarul nga fiy toog di wax ak moom wax bu yàgg moo tax ma ni même ku doon seet si wala nga ni woon li nga xalaatoon leer ga laal na la leer googu sauvé na doomu aadama sauvé na rox ya kon sens ba moo doon teew ci jotaay bi kon nan jàng fatiha ñu dugal ci haaju yëpp tëje ko salaatul fatihi ci barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi nga xam ni moo ñu barkeelal jotaay bi ñun ñëpp mu doon sunu yiw àdduna doon sunu yiw àllaaxira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 rabbana ixfir lana wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim bi hurmati allahu ba salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadarihi wa miqdaarihi alazim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin li ma bëgg mooy li ma leen waxoon daaw mooy ñu xaaj ji nii ñépp toog ñu may ma ma jàll ni ma malaayika yi di mayee ma jàll di dem xadaratul ilaahi ba ma dugg koy jóg soogay jóg